wax responsable yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ñoo nga fa woon Idrissa Seck ma nga fa woon toog Aminata Mbengue Ndiaye ma nga fa woon toog Macky Sall xool leen ci bët ñoom tim ñu koy xool mu xool leen ndax xam ngeen ne élection yi bu ñu ko ñàkkee loolee mooy ñàkk nguur gi njiitu réew mi di Macky Sall na leen xaar leen seen ñu gagné élection député yi loolee obligatoire la yéene kaay gi di bés bi ñu xëy fekk fa ministre Benoît Sambou mu mel ni kuy dalal xelu njiitu réew mi naan ko majorité ci assemblée nationale loolee moom di na sàqal daal yéene kaay gi xëy naan ñu élection député yi jamono ji gaay yëpp a ngi koy waajal Thierno Alassane ak docteur Abdourahmane Diouf ak Thierno Bocoum seen caution daan nañu koy déposé ndax ñoom taxawal nañu ab coalition boo xam ne aar askan wi la ñu ko tuddee yéen a kaay ne na coalition Yewwi Askan Wi ñoom tim ñoo ngi waaj baax a baax jamono ji ñoom tim yokk nañu seen doole ndax Maymouna Bousso mi nga xam ne moo jiite kuréel gii di force citoyenne dem na dem na xam ne moom la ñu dëgmal kenn ku nekk ma ngi fagoro kenn ku nekk ma ngi wul doole yéen kaay gi te enquête xëy duñu xibaar naan ñu nag soow mi li ci ñu la mooy opposition bi dañoo xaajali ko ci seen biir journal bi de Le Quotidien moom nam ko tuddee mooy mercato politique yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu benn fan ci weeru mai at mu jot dañuy déposer li nga xam ne mooy ay cahier de doléance maanaam jafe-jafe yeeg ñaxtu yi nga xam ne syndicalistes yi dañu koy ñaxtu at mu jot dañu koy jébbal njiit réew mi waaye nag lan mooy njëriñ la loolu la journal bi xëy di laaj yéen kaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu ba léegi njaw ma ngi wéy di desu xam bi na pënd bi wureeku la ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko ndax ni ki démb docteur Alfouseyni Gaye mi nga xam ne moo nekk CTO te defoon rapport médical bu Adji Sarr kooke ni ki démb doyen de justice da koo daal di déglu bi ma ko laajee mbir mi la ma ko xamal nee na ko maître Pape Samba Sow bi ñuy wax gab yi daf koo wowoon maanaam ko ndax yaa ngi hôpital CTO mu ko waaw mu ko ndax doo buuse mu ne ko déedéet sa suba sa nag la ko maître Pape Samba Sow daal di woowaat téléphone na ko jamono ji am benn xale bu jigéen nekk liberté jàpp ne dañu ko violé dañoo bëggoon nga ñëw récupérer ko yóbbu ko surtout su dee du la déranger nga defal ñu moom docteur Alfousseni Gaye nee nag dem jël xale bu jigéen bi andi ko ci hôpital bu surtout waaye nag bi mu ko defalee consultation daal xale bu jigéen ba ba mu perte ak ndawam yàgg na lool moom docteur Alfousseni Gaye nee gisul yenn trace violence yoo xam ne gis na ko si Adji Sarr journal bi nee na ginnaaw prélèvement yi nga xam ne docteur Alfousseni Gaye bi deuxième di ñu xibaar mbir mu garaaw garaaw moo xam ne moo xew ci lycée Aérou Lao dafa am benn jàngalekat boo xam ne moo fa ëmb la benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom benn journal bi di enquête xëy ñu xibaar nan ñu fan yi ñu génn doon ngeen dégg ca diwaanu Kidira ñuy wax ne dañu fa teg loxo xaalis boo xam ne toll na ci benn milliard bu fekk 725 millions journal bi nee na xaalis boobee nag bi ñu ko jàppee am na sénégalais ak ñaari malien yoo xam ne tegoon nañu leen loxo jamono ji bàyyi nañu leen maanaam libéré nañu leen yéen i kaay gi xëy duñu xibaar nan ñu syndicat autonome de l'enseignement ñoom nag jamono ji alerte nañu ministère bi ñu denk wàllum njàng mu kaw mi si jafe-jafe yi nga xam ne université Assane Seck ba sa sigi coor ma ngi koy jàngoonte la ndax nee nañu amuñu ay infrastructure waaye tamit bëri nay jàngalekat vacataires yoo xam ne kenn fayu leen yéene kaay gi du sunu làmb ñu xëy fekk fa Abdou Bakhoum mi nga xam ne mooy manageru Ama Baldé nee na Modou Lô dafa daw journal bi di Stades moom xëy di ñu xibaar naa ñu Real Madrid tey jii bu gagné Espagnol la Barcelone daal di jël championnat ba. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec leen doon may. seen revue de presse